maa jéegul ah. <laughs> ñëw na ah. waaw yaakaar léegi ñëw na. waaw ñëw na ayca bisimilah. léegi dañu koy tàmbali ah ak parlement CEDEAO bi nga xam ni doon nañ ko amal eh, am na nag ak jiixi jaxal ak coow goo xam ne meeku nañ ko ci mu dox ci diggante kii di Guy Marius ak kenn ci député yi nga xam ne ñoo fa représenté réew mi di euh, euh, af euh, di Côte d'Ivoire noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale lépp nag mu ngi tukkee ci kàddu yi nga xam ne ni ba tey ki nga xam ne ni moom moo di di Mari Sagna yëkkati na ko di ñaawlu taxawaayu ñaawlu taxawaayu lenn ci chef d'état africain yi loolu nag ko yéen kaay gi leen aussi loo xam yéen kaay gi xëy na ko fësal te mooy la nga xam moom la Ousmane Sonko ak euh, Bassirou Diomaye Faye di askan wax ne dañoo waxoon ne buñ toogee bokk na ci décision yi njëkk a jëf mooy wàññi train de vie de l'État waaye dañu gis ne ñetti weer daanaka yàlla na waaye ba fii gisuñu benn jéego boo xam teg nañ ko ngir wàññi train de vie boobu la noonu la ko yéenekaay gi di Walf Quotidien xëyee fësale soxna Aïcha waaye yéenekaay gi Sud Quotidien dafa xëyee dellu siwaat ci monnaie commune bi nga xam yéen kaay gi ne euh, gars yi nag ñu ngi togg loo xam ne ni bu sottee du baax lu dara ci franc CFA noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale tax yéen gi su ko tuñu xëy ji daal di ci amal ab taxaw seetlu. ñu dem ci le soleil gi di le soleil dafa xëy dalal euh, recteur Amadou Ali Mbaye ci laaj ak tontu gi dox ci diggante mag suñu naataangoo yi moom mu ngay wax ci mandat bi nga xam ne dafa jeex. Mhm. ak it euh, polémique gi nga xam ne nemmeeku nañ ko nemmeeku nañ ko ci résultat yi nga xam mooy ko fële ci CAMES. Euh, moom mi dëkk di euh, Ahmadou Ali Mbaye am na ci ay leeral yu mu ci indi lépp kon mu ngi ci yéen kaay gii di la Soleil. dem ci euh, journal ba tey mënugul a wan naa décision bi nga xam jël nañ ko daal di koy jëlee ca parce que mu nekkoon noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale moom ji li jàpp ne ne mbir yi daanaka ak fayanto la a daal mbiru politique noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale ndax moom fa mu nekk appel à candidature la woon kon du yoon ñu ko fay jëlee moom mi nag di ji li loo nag gars yi dañ Euh, dafa nekk di waxtu rek waaye la nga xam moom la gars yi def ci yoon lañ ko teg noonu la ko yéenekaay gii di direct news xëy fësali euh, yéenekaay gii di la tribune xëyee dellu siwaat ci rupture gi nga xam ne ni président Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko ño ngi koy woote nee naa rupture bi jaaxal nañu bare ndaxte fu mu toll nii ña ngay may sëriñ ngay jóob cabinetam daanaka njabootam rek la ci def mhm. noonu la ko yéenekaay gi xëy fësale euh, ci jamono jooju la Yacine Fall ci nguur gi kon moom jël nañu doomam daal di koy nap tabe name ko ab directrice na la ko yéen kay xëy fisale ci jamono joojulee wàllu Diouf Badiane moom ma ngay euh, seetal euh, pour autonome bu ndakaaru am na ci cent emplois yoo xam daanaka suspendre na leen am nañ ci ñeenti téeméer ñoo xam daanaka jamono ji yóbbu na leen semence na la ko yéen gi di la tribune xëyee fesale euh, waaw yéen gi di xam ne la ñu demee ko jamono ji yéen kaay na ci faay yi nga xam ñu ngi koy demee ko jamono ji ci décision yi nga xam ne ni état bu Sénégal jël nañ ko noonu la ko yéen kaay gi xëy fesale Mouhamadou Lamine Diallo moom di ko mujjee débarqué ki ko def nag mooy kilifam li ko nag nee na la koo xam ne nii ku sañ wax la maanaam daal fu ko dëgg fekk fa loolu amaane moo neexul kilifaam ba tax mu jël dogal daal di koy démis euh, daal di koy dàq noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale ci jamono jojule jiiriloo moom a ngay jàpp ni contrat am ni ñu ko daggee du yoon noonu la ko yéen gi di la quotidien xëy fësale yéen kaay euh, gi di 24 dal Amadou Ba mi doon indi ay dara jëmale ko ci yenn ci ay nomination yi nga xam moom la nemee ko jamono ji Euh, yéenekaay gi nag xëy tey ji daal di koy ci dalal mu ci indi ay leeral noonu la ko yéenekaay gi di 24 heures xëy fësale gi di l'évidence nag bu ñu deful ndànk fii ki fan yu néew Dakar dana fees dell ak mbalit donte la sax président Bassirou Diomaye Faye ma nga doon woote bëccëgu seet seetaan noonu la ko yéenekaay gi xëy fësale ndax ñi nga xam ne ay concessionnaire lañu nee nañu état bu Sénégal la waxante woon ak ñoom ci wàllu bor defuñu ci dara ba tax ñu jàpp ne daal fi lekki fan yu néew daañu delluwaat buum ca boy boy gënoon ñu la ko yéenekaay gii di l'évidence xëy fësale <laughs> waaw yéenekaay gii source xëy dellu si waat ci séminaire nga xam ne nii war na si na koy amal fële ci assemblée nationale euh, maanaam yenn ci kilifa yi nekk ci assemblée war koy amal lañ fas yéene waxtaanee rek mu ngi indi ay joppite jëmale ko ci règlement intérieur bu assemblée nationale noonu la ko yéenekaay gii source yéen kaay gi nag xëy dellusiwaat ci kàddu yi nga xam ni ay dem bu yëkkati ko jëmale ko ci euh, projet bu bees bi projet PASTEF bi ak it seen taxawaay ci ñetti weer yi nga xam jot jamono ji am nañ ko fële ci diwaanu Casamance noonu la ko yéen gi xëy fësale yéen gi nag la lañuy xaar ci président Bassirou Diomaye Faye mooy mu fexe ba ak yooyu nga xam am nañ ko fa ca Casamance mu daal koy gën a dëgëral noonu la ko yéen gi xëy fësale ci jamono jujëlee premier ministre Moustapha Guirassy ma ngay def kéem kattanam ngir duggal euh, daara daal ci système éducatif bi lee noonu la ko yéenekaay gi di la mandat xëy fësale laas yéenekaay xëy dellu siwaat ci conseil supérieur de magistrature bi nga xam ne ni gars yi ci seen recommandation ñu ngi sàkk ñu gën ko yaatal ba ñeneen sax ñu dul yëngu ñu ñu xam ñu dañu yëngatu ci wàllu yoon mën cee bokk waaye loolu yi nga xam ay magistrat nee nañu ànduñu si euh, ba tax yéenekaay gi di las xëy ji daal ci amal ab taxaw seetlu. Mhm, ñu dem ci gi di critique xëy dellusiwaat ci yi nga xam ne parti bi APR mi ngi koy dund jamono ji muy démission yoo xam ñu ngi koy nemmeeku jamono ji ci parti bi ak it rupture nga xam ñu koy nemmeeku ci kii président Macky Sall yéen neexul ba neex waaye fu mu toll parti bi di APR mu ngi ci sukuraat noonu la ko yéen kaay di yor yor xëy dellu si waat ci 105 de munitions bi nga xam ne daanaka état bu Sénégal commandé woon nañ ko luñ ci jubloo rek moo nekkoon réprimer nguur gi fi nekk tey ak ay militants noonu la ko yéen gi xëy fësalee mhm. Euh, mu nekk nag loo xam ne ni yéenekaay gi dafa xëy tey ji daal ci am ab taxaw seetlu yaatu. Mhm, di euh, bés bi le jour. bés bi le si waat ci combat nga xam ne dox na démb ci diggante Balla Gaye 2 ak Tapha Tine. Mhm. Balla Gaye 2 mu jaanaa daan Tapha Tine jël bu amul benn werante. Mm. <coughs> sunu lamb waaw sunu lamb aussi la xëy dellu si waat Balla duma na Tapha daan ko noonu la ko yéenekaay gi xëy fësale bii mooy ñaareel bi yoon Balla Gaye 2 di duma kii Tapha Tine ko yéenekaay gi stade dafa xëy dellu ci Osimhen ah, mi nga xam jamono ji ñu ngi koy séntu fële ca Paris Saint-Germain yéene kaay gi ne PSG fu mu seen yéen ak seen bëgg-bëgg mooy fexe ah, ba demook Mbappé fële ca ah, Real Madrid duñ ko sentir noonu la ko yéene kaay gii di stade mu mel ni sax l'histoire t'a donné raison de Seyna yaa fàttaliku bi ma naan la. Mhm. man daal tiit naa ci combat bi dafa tiit ni mu nga ne ma Aïcha Fatou lu mu toll toll xadar gi ne ci Balla Gaye doon bu ko maintenir. Ah delluwaat ci entraînement yi. Mhm. Ah, mel na mu meloon bu njëkk. waay mën na gis résultat loolu je pense que waxoon nga ko fii ci plateau bi. ah xam nga ay Aïssa man des fois damay naan booy yi ñoo bëgg def seen bopp ay kilifa. Mhm. mais bu ñu nee Balla Gaye numéro 2 ban année la judd ñu la 86. 86 ak léegi yàggul barki démboo Ndiaye la. 86 mhm. ñun ñu ngi koy fàttaliku. 86 ñu ngi fàttaliku Caire 86. bi nga xam ne ni dañ ne Cheikh Seck moo nekkoon ci biir yi. ñoom Omar Gueye ak ñoom seen mu nekkoon benn coupe d'Afrique boo xam ne ni ñoo ngi ko doon joué fële ca Caire. Sénégalais yi amoon ay jafe-jafe ñu demandé woon l'ensemble des Sénégalais ba ci ñun ñi nga xam ay élèves lañu jamono jooju de kenn ku nekk na participé. yàggul léegi xale yi ñoo bëgg def seen bopp ay muskalaf mais 86 yàggul. kon bu ñu nee par Balla Gaye 2 dafa judd 86 Balla Gaye 2 bëgg a moo tax dama doon toog ba si yàgg ma naan mais parce que moom li nekk ci moom amul ci benn mbër bu mu nekk ci moom. Mm-hmm. parce que Balla Gaye 2 dafa boole ñaar dafa am doole biir d' abord. Mm-hmm. deuxième aussi dafa nekk koo xam dafa dafa dafa am fit. deuxième aussi dafa donnu bëre. kon ku mel noonu tey jii boo jékki-jékki toog ba si yàgg gis muy régressé wu. dama la waxoon ne la. Balla Gaye 2 mu ngi nekk di fréquenté ñoo xam ne ni bokkuñu ak moom fréquentation. gis nga mbër day fréquenté mbër. journaliste fréquenté journaliste. loolu moo la ciy génne mais bu fekkente ne yow da nga jël promo profession ne mooy mbër bi. ba noppi bu ñu boo jógee ci mbëri yaa ngi yaa ngi fréquente ay homme d'affaires. te dem ba finalement après da kere. te boo kere nag bëgg dellu ci lamb ji di nga fekk ay xale yoo xam ñoo la gën a frais. Mhm. dañ lay duma dañ lay daal. dëgg la moo tax effectivement démb lamb ji ba ma ko saanee gis Balla Gaye 2 summeeku. Mhm. ci laa wax ne ne Balla Gaye 2 mi soppeeku na. Mhm. te ñàkkul ne aussi moom waxal na boppam. mën a jël na xalaatal na boppam et c'est en même temps aussi euh, kii na boppam leneen aussi li nga xam moom laay wax. mooy que euh, Tapha il faut que aussi mu xaw encadrement la am xaw ma je mais mais mais mais mais dafa des ah bu fekkee ne mu ngi gagné. Mhm. mais yi muy gagné si bëri ay décision arbitrale lay doon. Mhm. gis nga mbër bien que njool bi njoolaay am na solo raay bi am na ci mais dafa am lu am lu des mooy que entraînement bi ba tey dafa des. Mhm. démb ba Balla Gaye sumeekoo Tafatine sumeekoo da ngay xam ne ne Balla Gaye bi moo gën a taxaw Tafatine. te bañu jàppante aussi boo xoolee seen biir yi da ngay biir bi comme ndox te dañ nag dooley góor nag ci biir la. Balla Gaye 2 moo gënoon taxaw démb. moo tax démb bay arbitre soufflé effectivement Balla Gaye 2 wan na ko boppam. duma na ko daan na ko en tout cas bon ñoom ñëpp euh, kenn ku ci nekk yi euh, dañ koy encouragé moom Tapha Tine. xamal ne ko vraiment démérité wul mais na gën a gis nga sport amul a miser trop sur son poids. waaw non gis nga poids du dara gis nga chaque jour dama lay koy wax. gis nga nit ki réyal noo mën a réyee mais nit ki dina la gën a tuuti ëpp la doole. c'est moo tax des fois bu ma jékki-jékki gis ki nit ki ponkal muy dox nit ñi am ci moom day diir tiitaange damay posé wu la question nit ki mën na rëy te fekk ne rëy gi rëy yëpp ay xott la. nit ki mën naa tuuti te fekk ne moom moom mën ponkal bi nga xam moo nekk ci kanamu. la preuve mooy da ngay xool euh, ak gars yi. Uh-huh. xoolal da ngay jékki-jékki ñu ne la Modou Lo boole ko ak nit. nit kooku lee tey jii boo jëloon poids am ak Modou Lo ëpp na Modou Lo yoon et pourtant bu dajee ak Modou da koy duma da koy daan. Mhm. c' du daan c' est parce que tout simplement Modou moo ko ëpp doole. effectivement ki mën nga am poids. te fekk na amoo doole. loolu nag moom moo am ci lamb ji lamb da nga ci gis ay boo yoo xam ne nii dañuy naan ay protéines te en même temps am na ci ay mbër yoo xam ne nii chaque jour bu ñu entraîné c' dañu am combat. Mhm. mais bu fekkente ne da nga jël benn mbir di ci liggéey mu wóor na nga cee bëgg am dara ëllëg li nga war a def mooy que bi da nga ko war respecté comme ni ko Modou Lo di respecté mais l'essentiel ak lu ci mën tam mooy gis naa ne Modou Balla Gaye de forme bu mu indi démb forme bu rafet la forme bu baax la te je pense bien que lii moom bu ko continuer je pense bien que dina mën a dina mën a amaat dara ci làmb ji le temps que vraiment muy dem retraite en tout cas euh, waaw nañ jàpp nañu am ay ay ay ay ay ay nañ am na ay nañ wax sax si vraiment ci euh, euh, détermination bi nga xam ne nguur gu bees bi jël na ko par rapport ak waaw foofu c'est intéressant xam naa ne si dañ ko dinañ ci dëkkaat c'était très très intéressant li ñu jël noonu comme dispositif ça nous a permis en tout cas fois de sécuriser euh, quartier yi ak aux alentours ñi nga xam ne ñoo dëkk ci arène beeg yooyu noonu alors Seydina peut-être bàyyi la l'occasion bi nga xam ne bëgg nga ko waxtaanee tey. Hmm. waaw euh, <coughs> tey jii bon étant donné actualité la. Mhm. bon y avait pas mal d'actualité ñu war a wax. Mhm. mais ndem lënd bi des fois def benn genre focus ci benn ci benn dëkk. tey dama bëggoon ñu def benn focus bu ndaw rek. Mhm. ci localité bi ñu naan Ndioum Ngente. Ndioum Ngente. fu mu nekk. Ngent mu ngi nekk ci département bu Malem Odar Malem Odar mu ngi nekk ci biir région bu Kaffrine. Kaffrine nekk ci biir arrondissement bu Minam. Mhm. dëkk la boo xam ne nii soxna Aïcha. Mhm. boo xoolee am na ñeenti communes yoo xam ne ñoo ko seq. Mhm. muy commune nu Ndiobène commune nu Darou Minam commune nu Suuf. ak commune Ngent Paté dëkk la boo xam ne nii lu toll ci ñaar fukki village ak juróom-benn ñoom ñoo ko seqan mais dëkk boobu boobule tey ji xaw ma ndax président Ousmane Sonko teg na fa tànkam xaw ma ndax président Bassirou Diomaye Faye teg na fa tànkam waaye il faut que ñu xam ne ne gox boobu boobule ci Sénégal la bokk et pourtant ñoom sentir luñu seen bopp ne ci Sénégal lañ bokk soxna Aïcha amee naa fi ndigg 15 jours yoo xam ne toog sax mënuma ko te dara yóbbu ma ko lu may njoon bu bon parce que ba ma ñëwee ak suñu oto dañoo mujjee gaare oto bi Kaffrine. Mhm. mujjee luye kalandoo mu duggoon ñu si biir dëkk ba. diggante Kaffrine ak dëkk ba daanaka mën na 100 kilomètres te lépp ay pax la ndem oto kat kaf ndem kalandoo yi amuñu amortisseur. Mhm. bu ñuy daanu day compliqué maanaam buy oto bi daw day compliqué. Mhm. ba finalement ba nga ñibbisee da nga am problème mu dikk. ci yoon woo xam ne nii mën naa xam ne lu toll ci juróomi commune ñoom ñoo ko traversé. te loolu c'est pas du tout normal. Mm-hmm. il faut que yi di bàyyi xel askan wi nga xam nekk ci àll bi. deuxièmement aussi soxna Aïcha. Mm-hmm. mooy que man mënuma comprendre dëkk bu doy noonu. récemment lañ leen indil courant. te bañ leen di indil courant c'est parce que tout simplement élection présidentielle moom mooy ñëw. ngum ngente. ci ab commune boo xam ne am ñaar fukki village ak juróom-benn récemment lañ indil courant te bañ leen indil courant c'est parce que tout simplement élection présidentielle mais bu fekkente ne dem nga bay indi courant. Mm-hmm. mais courant boo ko yemale ci mbedd mi mais courant ba nga ko jël da nga koy daal di koy dugal ci biir kër yi waa kër dëkk mën ca mais li gën a garaaw man ba ma demee dëkk ba gis ko mooy dama gis ne nag boo demee ci dëkk ba ñetti nit lañ fa wàcceel courant ñett loolu la population bu wax man ma seede ko ñetti nit lañ fa wàcceel courant mhm. muy le maire muy le chef de village ak le président commission domaniale ci benn dëkk boo xam ne ni presque ñaar fukki village ak juróom-benn yam yoo ko seex nga dugal courant ci biir commune ba ñetti nit ñoom wàcceel courant est-ce que kon le maire le président commission domaniale ak le chef de village ñoom ñoo gën l'ensemble xam ne nekk ci biir localité moo tax je la lan mooy seen utilité lan mooy seen importance man bu ma nekkee njiit balaa nga ma wàcceel courant dama ne doo ma wàcceel courant tant que sa population amuñu courant gàcce la nga nekk ab maire ci commune gàcce la nga nekk ab chef de village ci commune gàcce la nga nekk ab président commission domaniale ci ab commune nga toog sa kër di tàq ñi nga euh, bi la ko def. Mhm. c'est mhm. mhm. a garaaw boo ci dëkk ba dañuy jël quatre plus daal di koy délibéré benn doomu aadama jox ko benn doomu aadama. ci jamono ji pour population bi ñu ngi xaar ñu jox leen seen début délibération mënuñu ko fexe ba jot ko. maanaam problème mu suuf daal dañ ko jël def ko problème du copinage yaay sama xarit boo bëggee délibération naa la ko defal waaye est-ce nga xam ne population lam la délibération bi dama ko xool pourquoi foo ko teg et pourtant loolu mooy situation bi nga xam ne sénégalais ñu ngi koy dund au fin fond du Sénégal moo tax may sàkku ci président Bassirou Diomaye Faye di sàkku ci Ousmane Sonko mooy seen euh, seen corps de contrôle yi nga xamul la ñu jël di ko yebal ci mairie fii bi Dakar nañu jël seen corps de contrôle di ko yóbbu ci biir au fin fond du Sénégal xool na xam ne noonu la fa maire yi yoree seen collectivité locale yi. Mhm. parce que maire ya fa nekk ñoom dañ jàpp ne ñoom ay buur lañu ñoom. parce que ya nekk nañ ci nguur yàgg nañ ca nguur ga dem nañu finalement dañ yaakaar ne maire yi ñoom ñoo ko moom loolu neex la ñuy def te li gën a metti mu gën maa metti soxna ay sol mhm. yow imaginel man may déplacé ñëw di ab localité waxtaan ak population bi population bi ne ma lii ak ne seen problème bii boo leen ko waxee il faut que maire wax ci wax ñu ne ma ala kulli aali nañu ko woo convoqué maire j'appelle le maire. Mm-hmm. ne ko monsieur le maire dama war a émission Ndioum Kente te xam naa ne gars yi dañu la dama bëgg nga déplacé wu nga ñëw mais à ma grande surprise le maire m'appelle pour me dire que fi ngeen defee émission bi lieu privé <laughs> mais est que comprendre nga soxna Aïssa. oui yow naka nga mën a nekk ab maire nekk ci benn localité. population ba fa nekk fal lañu même bu fekkee ay opposants lañ sax mais ñoom ñoo la fal. mais tey jii bu fekkee nañ la war a woo da war a déplacé wu ñëw. même bu fekkente ne lieu privé la laa wax bu ñu la wooyee da war a déplacé wu nga ñëw yow. mais nga toog ñu lay woo téléphone nga ne dama bëgg nga ñëw ma bureau comme ça après su ko defee ma tontu man kaan nga ne Seydina Omar man genre boobu laa man. man yaakaar nga ne man dinaa dem ci ab localité jël population bi mais a toog ma ñëw jël sa bureau yow sa bureau ma lay jël.

alors que yow fi ñu koy organiser ci mbedd la. booy dugg njum ngente euh, penc mi foofu la ñuy organiser émission bi. Mhm. yow la maire alors que yow avisé nga ko ne ko. askan wi man je suis professionnel. oui du ma defantu du ma waxantu. tout à fait. mais li ma ci gën a métti dafa kii m'appelle au téléphone pour ma dire que fi ngeen defee émission bi nga euh, lieu privé la léegi damaa bëgg boo paree nga ñëw sama bureau nga jël ma man ma ñëw sa bureau dina la jël honneur quoi il faut que ces maires là di mais c'est dommage que respecté wuñu seen population quoi parce que yow balaa ngaa nekk maire da dem ci population bi di leen sibooru. di naan nag am ataaya. di waxtaan ak ñoom tey jii il suffit que nga fal rek su ko defee nga changer comme ça pourquoi. c'est que insulter la da man daf ma insulter d'abord insulter la population. le fait que may ñëw di organiser émission mu wala téléphone. ne dama war a émission ci bëri localité yow na nga déplacé wu nga yow ngay maire commune. te muy sa commune. muy sa commune ñu privé la nga war a ñëw même bu fekkente ne sa xol boo fa doon ñëw da fa jël ay yat ñëwal loolu laa xam ci am maire. Mhm. et puis c'est dommage ça c'est que bi euh, euh, local c'est en mhm. moo tax gis nga Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko décision yi war a jël du des na mhm. gis nga administration territoriale bi il faut que ñu changer lu ci bari. Ah parce que y a des sous-préfets et des préfets yoo xam ne ni mais mooluñu ah. am na ay préfet ak ay sous-préfet yoo xam ne ni mooluñu mhm. dañuy nekk ci biir àll bi en complicité avec les maires di teg jiit population alors que ça c'est pas du tout normal mhm. te loolu maa ngi sàkku ci préfet euh, ci président Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko ci jël si ay matukaay mhm. en tout cas problème la boo xam ne ni dama waxoon dama tënk waxoon waxoon ko parce que yii wartu la jàll ci dëkk bi dañuy ne dañ indi nguur yu bees nguur gu bees nag bu ñu defee ànd ak lu bees lu bees li mooy que tey jii wàññi dund gi am na solo mais administration bi foog ñu xoraat ko. Mhm. parce que arnaque bi nga xam ne nekk di population bi ci àll bi du dëgg du yoon. Mhm. loolu di ma may may wax ci problème mu Tivaouane Pël. Mhm. très rapidement c'est mairie Tivaouane Pël ñooñu xam ne ne ñoom la la mairie Tivaouane Pël. bu fekkee dafa am ay arnaqueur ci seen boobu boobule. damay junj rek naa ci dellu si waat. maa ngi ci ubbi ab enquête. ci biir mairie Tivaouane Pël. mairie Tivaouane Peulh maa ngi ci ubbi ab enquête parce que balaa maa noppalu il faut que mu am ay corps de contrôle waxuma la même bu fekkee am na contrôle contrôle bu fa nekk aussi il faut mu amaat yeneen yeneen i corps de contrôle yoo xam ne foo ñu dugg mairie mhm. parce que man dem naa mairie Tivaouane Peulh am na lu ma fa daj man te loolu ma fa daj tey en tant que homme de média bu fekkente ne yeneen population bi moom la ñuy daj ñoom dama pose la question mhm. te loolu nga xam ne actuellement ni moo am mairie Tivaouane Peulh faw ñu sans faw ñu lijjanti ko te li gën a métti mooy un maire boo xam ne yow dañ la fal population bi fol la kenn du la woo téléphone ba jot la kenn du la envoyé message ba nga tontu des gens irresponsables di jiite ay commune sa pas du tout normal te loolu naa si dellu si maa ngi koy gëstu mhm. avec des preuves à l'appui te mhm. dinaa ko indi fii ci table bi teg ko xam ne ne Tivaouane la fa nekk di am ci wàllu njuuj njaaj dinaa ko génne te bu ma génne daañu xam ne ne génne naa ko mu ngi noonu on y on y reviendra incha allah sur la question du foncier toujours euh, avec euh, Seydina Omar Ba alors Seydina jaajëfal bu baax a baax la zone rendez-vous demain incha allah ci yeneen sujet yu gën a am solo. le halo de Seydina le halo de Seydina <laughs> de dossiers en main di de toute façon dinañ ko gën a euh, mais li nekk daal ca euh, ngum ngeen ngente raf mattalu nañ ko loolu vraiment ak lu mu mënta demee rek boo nekkee ab njiit nga jiite commune balaa ngaa seddu ci lenn da ngaa war a jox sa waa askan ba noppi ñu seddu euh, la fait nag vraiment benn maire wala benn ko ko nu domanial xaw ma. président conseil domanial ak xaw ma kan am ci am ci courant ci des nga bàyyi leen askan wi loolu ñaaw na trop ci gis-gis mais quoi qu'on puisse dire dinañ ci gën a waxtaan incha allah rabbi jaajëfal lu baax a baax si naawal ba léegi-léegi sans plus tarder dañuy dew dalal Mélanie Aminata Sambou ci le la rubrique le panier de la ménagère